yow tam da am wàll si réew mi loo war a joxe nga loo xam ne yow yaa am nga man man day léegi-léegi dama day gis ñeneen ñiy dox ñu ngi dox yoo xam ne daal man gis naa ne daal suñ ma fa tegoon man mi laa ko sax dinaa def lu génn loolu am nga nekkul ne nit yi nga ne ku yàlla téye sal nga foog mu jox la leneen nekkul ne am nga baaraam yi sax amuñ am nga lu nekk amut ci nit yàlla dina la jox lii xañ la lii waaye li am nga ci loolu dañu war a bokk si développement bi daal